jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ni yéenay seetaan wasaare làmb mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di am kontaante ak mbégte jàkkaarloo waat ak yéen fii ci wasaare làmb mbokk yi ñu ngi fii ci Gambia nekk ci benn hôtel bi nga xamante ne mooy hôtel My House nekk fii xale bi ñu fi indi mu ngi ñu jëlee fi nga xamante ne mooy Sénégal ku ne xam ne Sénégal ak Gambie benn la duñu ñaar muy jam production mu indi ñu fi ñu ñëw di xool si ndaanaan yi nga xamante ni ñoo bokk nekk ci hôtel ndax ku jël ki nga xamante ni mooy wulli jël liiru jaan boole leen ci benn hôtel mbokk yi dégg naa xeex suba xeex ngoon mbokk yi ñu toftal ci ki nga xamante ni mooy joon Mandione Baye Mandione mi ngeen xam menn mi Baye Mandione mi caarey Baye Mandione mi nga xamante ni moom moo woote turu gëm sa bopp mbokki bu ñuy woote gëm sa bopp Baye joon lañ ko bokk nañ ci mbër mi ñu ko njëkk a déggee ci làmb muy Baye Mandione ci xadar gi ci am jom gi ci mën a bëri ci am fit gi moom moomu Baye Mandione tey moom laa bëgg ñu dugg ci biir hôtel bi Pathé dem xool ko xool nan la Baye Mandione toogee ñu dem xool leen ay ca Pathé ñu dem. siyaar naa leen mbër maa ngi lay siyaar naka la yaa ngi ci jàmm champion Baye Mandione naka la yaa ngi ci jàmm. nakay tey mbaa yaa ngi am tawféex naka mu naka jëm mba mbër dafa mel ni daa dafa doon xewlu ba pare de <laughs> dama buggoon ñu waxtaan léegi yow Baye Mandione mbokk yi gis ngeen kii mooy Baye Mandione Baye Mandione kenn du ko présenté Sénégal xale bàyyi noonu bu bàkkoo mu neex su bëree mu neex macha allah ci jom ak fula ak fayda gi nga xamante ne moom am na ko Baye Mandione Baye Mandione waa a làmb ñoo la seet si ñu ngi lay nuyu waaw maa ngi leen di fay yéen ñëpp waa Wassare Lamb xam nga di nuyu Gambien yëpp di nuyu Sénégalais yëpp ndax Sénégal ak Gambie ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi may ñaan yàlla soma borom wàcc fi jàmm wàcc fi xéewal wàccal fi président bro ak gouvernement am ak képp ku yeewoo Gambie rek yàlla defal la jàmm asalaam ndax dem ba léegi fa ni yeewoo ñun quoi xam nga du nuyu champion moo war a muy xoyantaan du nuyu waa ci réew mi yëpp xam nga di ko wax ni rek. dañoo ñëw Gambie nekk doomu Gambie comme moom. daa pëloo ñu fi dara. di ñaan yàlla sama boroom defal ma ndam ci kawam. ñu xool leneen quoi. Baye Mandione léegi balaa ñuy waxtaan. mu bëggoon ñu toog. ndax yow Sénégal dañ la namm. te boori nañ bëri na ci lu bari loo xamante ne ci làmb. war nañ koo mën a waxtaanee. kon ñu toog ànd waxtaan. ba tey ñu continuer waxtaan bi maa ngi ci ànd ak sama xarit. sama frère sama doomu ndey sëñ Basirou sëñ basiru avant ñuy jox Baye Mandione maa ngi lay nuyu. fay naa la Baye Djily ñu ngi lay nuyu di nuyu Mandione di nuyu gars yi ñuy seetaan yëpp à travers le monde entier di leen jaajëfal comme ni nga ko waxee sànq rek ñu ngi fii ci Gambia làmb moo ñu fi indi dañoo wuyu suñu tur nag ku wax wasaare làmb wax fu làmb nekk nga jëli ko looloo ñu indi tey ci yi ñu fas yéene jël li fi nekk ci làmb wasaare ko ba àdduna bi yëpp gis ko. kon tey ñu dalal kenn koo xamante ni bari na lu mu def ci làmb muy Baye Mandione ci ci li li nga xamante ni maanaam booy booy wax gëm sa bopp bokk na ci ki ko njëkk a incarné ci làmb ji moom Baye Mandione bu bëree mu neex su tuusee mu neex nga gis xadar gi ak jom gi ak fulla gi Baye Mandione combat gu mu ñàkk da koy ñàkk ak jom combat bu mu gañee da koy gañee ci jom looy wax ci loolu. waaw ndax boo xoolee mbër ñaari mbir mooy nekk ci moom laataa muy doon mbër mooy fit ak nangoo liggéey loolu bu nekkee ci mbër rek da koy may jom da koy may lépp lépp lu mu mën di am ci làmb looloo koy may te ku wax Baye Mandione wax mbër mu am fit ku wax Baye Mandione wax mbër mu nangoo liggéey. ndax Baye Mandione tey bu nekk toon ku nangoo liggéey am na corpulence boo xam ne du ko am am na mbër yoo xam ne du taseeg ñoom ci làmb kon ñaar yooyu bu ko regroupé normalement war naa mën a am lu nekk ci làmb kon Baye Mandione champion moo ko def li mu doon tey. kon tey ñu wax ñu taxaw waxtaan ci Baye Mandione Baye lan moo waral nga choisir bëri si Gambie. waaw parce que ñun euh, làmb Sénégal la paie doole ko Gambie te Gambie Sénégal ñoo bokk ndey ak Baye xam mooy li ma la wax sànq rek. kon tey ñu ñun waroonoo reyante fexee ba ni làmb développé Sénégal ba ñu bëgg ko ñëw ni làmb ji Gambie fii ba ñu bëgg ko ndox Sénégal ak Gambie su waay benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar xam moo tax may am contentement trop kon nag seen roi des arènes bu bëree di bëri di bëree bëri ba doon roi des arènes xam fekkee moment yii Eumeu Sène ne roi des arènes mu laaj Eumeu Sène Eumeu Sène faalewu ko yaa ngi dégg mu laaj fi Modou Lo Modou Lo faalewu ko laaj Balla Gaye gars yooyu yëpp bëri ci daanaka bëri Sénégal yëpp kenn ku ne yekk na lu mel ni xamee mm. yàlla dogal nag man la am mooy bëri moom muy roi des arènes bu mm. kon nag man couleur Sénégal lay défendre fii ci Gambie donc nag ñoo bokk nday ñoo bokk bay Sénégal ak Gambie xam nga la mais ku ne sa kër ngay reer jeey man Sénégal laay défendre kuréel Sénégal laa ñëw fii yaa ngi dégg Gambie pour bëreeg waa ji yàlla may ma ndam ma jël drapeau Sénégal mu siggi ci kaw ma naat ko Sénégal incha allah jël roi bi jox ko Sénégal yëpp ñëpp nekk roi zéro ñu jeex tag loolu ko Baye Mandione est-ce que dina yombee noonu ni ngi ko yaakaaree nii di ko waxtaanee. gay mbir mi xam lu koy joxe entraînement liggéey gàllaaj am na ci làmb bu baax a baax mais ay muslaay kese la yaa ngi dégg mais lii waral ngay am ndam yàlla moom moo ko yor. mais entraînement bay bëgg a dee instant bi aw ma di ma dimanche liggéey dama entraînement bay bëgg a dee. combat bu doon léegi sax pare naa fi mu toll nii parce que man damaa ñaan yàlla sama borom defal ma ndam si kii. ma xool li sama kanam xam la parce que làmb ji moom su waay képp koo xam dangay ngay découragé wax ma làmb sa àdduna wax képp ko découragé doo am dara. tey buy neex ngay bëgg say fans di kontaan. mu naqari nga bëgg a sa carrière loolu maanaam loolu baaxul loolu gëmut yàlla la. boo gëmee yàlla bu la yàlla mayee santal bu la xëñee santal da xam ne moo yor ay dogalam doomu aadama nit mënalul kenn dara ndax ku mënal nit doomu aadama fekkoo mënal la doom nit dara yaa ngi dégg tey boo ku génn àdduna xoolal doomu aadama la nit moo ko fay fekk moo koy yëkkati moo koy sang moo koy sang moo koy suul moo koy ñaanal te wañ sax woñ woñ woñ bii naa bu toggee sa kaw boo deewee mënoo koo faxasal sa bopp yaa ngi nga xam ne yàlla suñu borom moom moo fi ne booy wakkirlu wakkirlu si yàlla suñu borom jël say mbir wér si yàlla te pour man boo ragalee yàlla ba pare amatoo droit ragal leneen looloo tax man mënumaa tiit mënumaa ragal doomu aadama mënta ne ak ku man mënumaa ragal doomu aadama mënta ne xam naa bi su ma taxawee soo mënoon góor ma jàkkaarloog moom sama fit maas wala ma tiit xam naa ne jour boobu lan gasal bàmmeel ma dee. loolu moom ñëpp bàkkee nañ la ko ci làmb. du ma ragal du ma ragal ni bàyyi ma njoon combat bi mu ñàkk sax. ñeme ak am fit làmb du noonu. njoon muy man di yow si bokk yam mënoo ma wax biig bu nar nga nelaw mënoo ko man mii xaw ma bii ban heure laa nelaw mën ngaa dugg sa néeg minuit tëdd nii mais heure bi nga nelaw exactement doo ko xam hmm. nga xam ne yàlla moo moo fi ne doomu aadama yaa ngi dégg yàlla moom moo ñu teral lu yàlla bind doomu aadama moo si gën ndax Seydina Ahmed alayhi salaatu wasalaam Seydina hmm. moo tax yàlla lu bind rek yaa ngi dégg Seydina Mohamed moo si gën hmm. waaye lu mu bind doomu aadama moo ko si gënal xam nga mais làmb day loo xamante ne tey jii foofu cosaan la yàlla moom yaa ngi dégg moo ciy xiir doomu aadama man bi may bëri nekk xale bu ndaw di dem ay mbapat fu ne ma fay dem di bëri yaa ngi dégg dugg ci àll bi di bëri ji ay tournoi boobu média melul nii yaa ngi dégg boobu média melul nii mais fu ne dem na fa bëri ji mbapat ay fu ne dëkk séeréer ay mbóojeen fu dem nañ fa dem bëri ji ay tournoi foofu noonu yàlla duñu bul xéewal ñu fay jël ay drapeau temps ay drapeau moo xew ay saaku ceeb yaa ngi dégg ak ay meew ay yooyu ñu la doon joxe quoi xam nga yenn saa nga dem frappe nag affaire yooyu mais instant bi may wax yow ni làmb développé na instant bi boo xoolee Sénégal majeure partie bi yëpp ku su na da ngay dem entraînement ji bëgg nekk mbër xam man de ma soñoon tey làmb ji képp koo xam bàyyi nga sa métier dugg ci làmb ji su ma soñoon yàlla defal lu kawe sa njortu ndax maanaam yaakaar dafa foor yow nit ku bàyyi métier yëpp ñëw na mbër nga ci làmb ji nga bëgg a terale say waajur si làmb ji nga bëgg a amee sa kër si làmb ji nga bëgg a gérer njaboot ndax mburu làmb yàlla daf ko may loo xamante ni maanaam yombul tey boo xasee ba siw ambassade ba dem dañ lay may visa yaa ngi dégg koo bëgg yóbbu tey jii yaa ngi dégg nga war a dem def vacance foofu tey boo dajale ay passeport dem dañ leen di may nga dem teg ko si yoon mais jamono moo toll foo xamante ni nag yaa ngi dégg bëreetul ñu teg loolu si yoon xam la wax mais mbër moom wax dëgg yàlla képp kuy bëre ku ne man de li ma lay ñaanal mooy yàlla ubbil la xéewal yi nga am ci xaalis bu bëree bëri dimbali say waajur dimbali say famille dimbali say mbokk ak képp ku ci yàlla boole ndax xaalisu mbër dafa yaatu tey nit nekk na fi minti milliardaire Sénégal bu la waxul milliardaire laa wala dafa ñu ko journaux doo ko xam mm. tey yéen ñaara ñuy toog yaa ngi dégg mën ngaa denc ay millions ban ma ko waxul tey du ma xam mais bokkul ak mbër mi nga xam dañ koy fay léegi léegi hmm. bu baa ñu nekk nii faa nga ci journal bi diw ay nañ ko jox nañ ko dégg naa sa combat bi ak xoyantaan laal nga ci xaalis dama xaagali mbër yaa ngi dégg def ko bi mbër fay nañ ko temps hmm. waa yow est-ce que yow xaalis boobu ñu ñu jël def ko bi est-ce que koo lekk yow rek bàyyi doomu aadama yi dañuy déplacé wu ñëw sa kër mais bu fa ñëwee xaalis bi andiwu leen fa hmm. yàlla moo leen yabal dem leen fële diw am na combat dem leen jëli seen wàll mais ñoom bu ñëwee seen wàll jox leen ko bi leen ko xëñ ndax yàlla moom moo joxe wërsëg bi pour nga maanaam nga tasaare ko xam yow mi yow mi am combat sax

yéey combat préparation combat yàlla mooy joxe ndam mais li war maa ngi koy def mi entraînement saa bi dama entraînement génne bay bëgg dee damay tamit gars yi naan damay liggéey damay liggéey damay entraîné di wax ju yàqu la mais boo simee koo taxaw rek gars xam ne liggéey nga. te bu soobee yàlla képp kuy fan si Baye Mandione. jox laa ne bu si combat bu soobee yàlla. ma su ma simee koo taxaw ñu xool sama tànk xool kaw ak suuf dinañ xam ndax man damaa tudd nelawam déet. mais xam nga li ñu jaaxal tey danga nga wax sa biir i wax a Sène bañ na ko bala bañ na ko Modou Lo bañ na ko mais champion yooyu bañ xoyantaan yow nga jël ko est-ce que jàppoo ne da nga tàbbi ci këppatalam. non du affaire ay këppatal man junni xoyantaan diggante wu ma leen junneem diggante wu ma leen. moom leer. mbër man maay mbër moo xam ragaluma ak kenn ci àdduna waxuma lay mbër de ci àdduna ragaluma ak kenn mbindeef mi yàlla bind ragaluma la. lu la motivé ba nga jël xoyantaan xam ni war naa kaa mën jël bu leer dañ dem Sénégal ndax waa ji amul yar mbër may bëreel amul yar amul teggin ndax bi si signé ak moom contrat Sénégal mu ñëw Sénégal su jomb billaay dafa ñëw ma ñëw bàkku ñëw ba ci moom akol laa kër nekk mbër maintenant ma nekk ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi li nga de Gambie Sénégal ñoo bokk ndey ak mais teewul nag bu jour ba yaa ngi dégg lu ko loo xam booti doom boo mënee rey reyal mu la mënee rey mu rey la. Hmm. bu jeexee ñu bokkaat suñu ndey bokkaat suñu baay. Hmm. yaa ngi dégg. Hmm. ma def atum naay sama diggante moom saafonte moom ñu ànd bàkku mu neex. mais man su ma déplacé woo ñëw Gàmbi tey war defa def ak moom càkkaarloo. ñu xëy suba teel dem ci rajo bi àndat ànda toog mag ak moom. bi mu toogee ma àndaa suma rek bàyyi ma doon si ñoom ñëw toog. moom mu ci plateau bi de. mu ne bàyyi ma doon day génne damay si biti sama rakk bi. ma bañ coow ma ne booy bi garaaw dama si biti xaar ma booy bi génn xam nga mu ne yow sax su ma nga génn plateau bi ndax fii sama studio Gambie man maa ko moom maay roi des arènes bi fii lu ma neex ma fi am. Hmm. waay nag ma jug pitaar ma ne damay waay waay dogo nañ. major que est ni est-ce ni loolu muy def noonu dalaa bëgg a déstabiliser pour am li mu bëgg ndax ñu ci bari ci làmb nee nañ Baye Mandione soo ko bëggee daan danga koy merloo. waaw jeex na fi ay mer ak ji sa waay man xamal laa la ñaate. parce que yaa ngi ne petaar nga. mën naa yëngil fii ba nga naan la ilaha illallah kii de xool baa ngay baf fekk dara newul fii ma wax la tey. Hmm. man naa yëngal fii doo ko ne léegi nga ne waay def nii. yaa ngi de hmm. mais su ba tey ñaari seconde rek man li doon man maa ngi ci yeneen. parce que démb dañoo gis ci fas à face bi ñaar. yaa ngi wane confiance boo xamante ni hmm. moom mu ngi concentre wu man jàpp naa ne njoon ñaari mbër yuy bëree yéen ñaar. ñaari mbër yu bëree. entraînement ji laa koy wax. man ba ma toogee commencé ba bu ñu commencé bu toogee ba ni bi jeexee ñu jàkkaarloo géej géej gi ngelaw foofu seen guy. Hmm. may ñax ba ni mu jeexee. Hmm. ku liggéeyul na def loolu. loolu ñëpp gis nañu. dafa toog moom moom ba dara génnul si moom dama mujj jël ay mos sax di fomp sama sama da ñax. Hmm. yaa ngi dégg parce que boo entraîné soo yi entraînement du fen bul sonn. kon da ngaa jàpp ne xooy lu leer laa la wax maanaam man dama bëgg mu yokki entraînement am. mu yokk entraînement am. taxawul mbër làmb làmb seytaane rek. mais mais yàlla baax na quoi daal dara tiitalu la ci moom waaye waaye déggal ci naa ay ay bàyyi ba taxaw wax waaye. baay bàyyi ma njoon bàyyi ma njoon. Fallay <laughs> dund ak sambataan waaye naka mooy waaye baa lay ñu gis bi ngeen taxawee yéen ñaar ci kaw. yaa ngi ko doon wax ay wax ci suuf wax yi nga ko doon wax ci suuf lan la. waaw di nga wax rek euh, mu dëggal boppam rek te xam ni moom mooy roi des arènes bu Gambie rafetul tey heure bi moom mi àndee rafetul quoi vraiment loolu laa ko wax mu mu sàmm ngorom rek bu jour baax. la war moom mooy roi des arènes bu Gambie mu taxaw yaa ngi dégg. Hmm. li mu andi mu andi ko man li ma andi ñu xool. Hmm. Baye dañoo gis ci yow macha allah bi nga taxawee ci kaw. Hmm. ñi analyser yëpp ba ci man ak sëñ Basirou mi waxtaan nañ ci ñu gis forme boo xamante ni dafa mel ni dañoo gis beneen Baye Mandione. mbër man du fen yàlla moo ma tiim su fenee man may damay am bàkkaar yow may déglu boo xamante ne da nga ciy yaa ngi dégg de mais instant bi li may entraînement ak sama décision bi ma jël musuma ko jël suma maanaam carrière sama àdduna musuma ko ci jël. mba dafa am lu ma la wax sànq amatuma papa amatuma yaay njaboot gi wër ma. yaa ngi dégg de tey il faut ma ma bàyyi lu bëree bëri pour am pour pour dabuli sama kanam. yaa ngi dégg man làmb gi dama cee dese lu bëree bëree bare bëri mais nag surtout bu bu bu suwee yenn siiw rek ñu commencé naan ay bëgg laa def mag affaire yooyu quoi. man sama ñi may bëreel ñëpp ñi samay moroom lan caare gi ma dëkk ñaari mbër laa fa mag amet dem laa fa mag ak rëg-rëg mbër yi fa nekk ñëpp ñoo mag leer tey boo ñëwoon suma suñu kër ma woon la sama mag bu jigéen bi xam man maa topp ci moom da nga ne nekk billaahi wallaahi taala ma ne leen kii suma la man maa topp ci moom nga ma lii amul yaa ngi dégg mais làmb moo baaxoo noonu te man damaa siw avant ma ñëw sos ci di nekk mbër da boobu man maa ngi ci simb yi affaire yooyu quoi xam ma baa ma yoon biy daw yaa ma gën a xam nii ba ni ma ñëwee ci làmb ji euh, affaire bi gën a ñëw xam nga mais entraînement rek moo wóor man maa ngi koy doog a xam xaw ma ko woon de. waaw mais man instant may waxee woon nii décision bi ma jël gàttal suma tànk gàttal suma làmmeñ wàññi samay bëgg-bëgg. yaa ngi dégg toog si gàlle bi gérer suma njaboot ma fenn entraînement ñëw reer ba suur tëdd jàkkaarloo télé seetaan jàkkaarloo suma njaboot. dew ma fen fen fen fen. kon yow bu ñu déggee baax entraînement yi daawoo ko def ni ni mu waree. non non man du ma fen loo ma laaj ma wax la ko billaahi wallaahi taalaa daaw ma entraînement normal nag su ma waxee te yàlla tax rek te yàlla tax sama combat yi mujj yi nii nii su waay boobu man sama papa bëri laa gis xàmmeetu ma woon jànja ak joor koo ma jox damay bëri ak moom boo ma joxoon yaaw jaa sax ma bëri ak moom. ndax sama papa wér ndax booba su dimension bi ma toll woon suma ma diggante sama papa dafa dafa jéggi woon dayoo sama bopp. man moo na comprendre quoi man sama papa tëdd nii feebar bi yàgg bu tëdd nii quoi tëdd saa mu xëyee rek ma jàpp ni kii daa war a jug nekkaat en forme bu topp ñu commencé gérer waxtaan kafre ah maman may perte saa mu ñëwee rek fekk ci mu tëdd ma koy xool. mor ma ne kii yaa ngi dégg dañoo jug ñuy toog moom ci saal waxtaan nangam ak nangam yenn saa ma ne kii na ko loolu dem naa mujj gi mënatuma ko xool te man maa nekkoon ak moom man ma ma maa ko defal lépp àgg naa ci moom foo xamante ni yaakaaroon naa ah, nit dina dunda ba dee du àgg ci moom papaam foofu hmm. mujj gi mënoo am force billaahi wallaahi tallaahi naa man bàyyi ma yóbbu man góor nga góor mooy toppatoo góor jigéen mooy toppatoo jigéen mu ne loolu la ma wax mais dama dem mujj gi yàlla suñu borom moo ma may moo ma may lii bi pour ma mën a waaw kay yàlla moo jékki-jékki rek benn jur ma xëy rek man dafa am yàlla lu mu dugal sama bopp quoi ma commencé xam nice léegi di dund ak paa bi normal nii nii nii waaw. Hmm. di defar nice affaire yooyu quoi mais commencement bi métti woon ci man. ndax am na loo xam bëgguma ko a gis sama papa. am na loo xam waaw. ci feebar bi. Euh, yan hmm. combat lañ mën a jàpp ne jël nga leen période boobu tombé ak sa papa feebar. waay premier bi may préparation combat ak Baboy. boobu bu njëkk waaw. ngeen bëree. ma ma daanee bir dama daan biri si nii. yaa ngi ma sama combat biri si may may bëri moom Kaolack. yaa ngi dégg temps yii feebar bi daanaka doon paam mais dama ko yóbbu rendez-vous muy dem principal ak ñëw ma koy yóbbu rendez-vous affaire yooyu quoi. léegi ko woon mais peut être may bëree baaboo yee paam mi ngi ak may bëree kii kii double S numéro 2. boo koy daanee paam bi mu ngi tëdd. yaa ngi dégg. may bëree mu doon te kees. baa bi hôpital laa dem mu ñaanal ma dem ma dem. ma dem te baay si hôpital fekk nii. baay li ñu jaaxal mooy loolu yooyu yëpp yaa ngi ko doon dund ci làmb te boo ñëwee du feeñ. combat mujj bi euh, maa góor a soog ndar. Mm-hmm. billaahi wallaahi tallaahi xam nga clinique mbooj bi nekk OPEX euh, OPEX. Mm-hmm. waaw mm-hmm. foofu la paa bi entré woon journée vingt cinq mille la doon fay foofu. journée bis bi vingt cinq mille doon fay. may may bëri ji euh, ndar maa góor falaa dem billaahi wallaahi taalaa ci hôpital sam taala si loxo paa bi nii yëkkatee loxo mu léegi man maa doon yëkkatee loxo bi yëkkat beneen loxo bi nii xool ko nii naka ñaanam ma damay bëri ji affaire yooyu quoi. Hmm. mu def nii daal ëf après ma génne daal dem ko mais ma bëree ba pare sax ma daan ma ñibbisee dafa ma ñëwee jubal ma gàlle fa laa jubal si moom xoole ko booba sama naw ci ay daanak da li gën tuuma yooyu man paa bi man li may ne ci làmb ji sa paa bi laay xalaat a vent vie yàgg nii ah. ba bàkku yëngal yëngal yëngal jëkki sama xel ne yar si paa bi mam ma leen ma xappaa ndox a naa kama billaahi wallaahi tallaahi sama xalaatee rek ma ne woon maa ngi fi ci làmb ji ñu ñii di tëggaa ka way sama papa nga fay tëdd ci hôpital ba mm. xam nga waaw affaire bu garaaw quoi billaahi dugaloon ci jël combat te paa ba ñu jël may jël combat pour ay mbër parce que ordonnance ñëw ngay hôpital yi fii mais Baye Mandione kon yow est-ce que Baye Mandione. billaahi wallaahi tallaahi sama papa dafa am taxaw ba nu mu génne ay doomam zéro faute ñun ñëpp feer doom yëpp si jàpp ñoom ñëpp tout ba ci ay sëtam sax sama doom sax jàpp nañ ci feebar bi ñëpp ñëpp ñëpp billaahi wallaahi tallaahi kenn seetaanu ko ci dara dañ ko toppatoo ba ni ko yàlla suñu borom jëlee zéro faute yaa ngi dégg mais man mbër man man du koy ñaan manuma ñaan manuma def dara lama gi laa mooy sama métier damay jël ay combat am xaalis moo bëgg a faj faj ko. waaw. yow maanaam comme Baye Mandione mbër yi ni ñuy amee jàppale est-ce que Baye Mandione am na jàppale. aw boobu benn jàppale du ma du ma fenn mais saa may waxee yoon am naa jàppale du ma du ma nëbbu. kon avant ndax Tahirou Sarr may wax sama sama suma may wax ne suma papa la suma lépp la. Hmm. benn bu ñaar la. kooku xaju si combat sax jàppale ma xaju ëpp si si combat pour muy leer. Hmm. mu ngi may taxaw guddi ak bëccëg lu ma bëgg suba ba ngoon ma koy defal. Hmm. wallaahi. ba may ñëw fii nii si yi nii moo moo ma géré lépp nii ba dama toogee di wax yow nii wallaahi tam xarit nag bu gant la ma yónnee na ma am sa ndawal yaa ngi dégg tabaski mu yónnee ma xar boo xamante kenn xamul lu mu toll yaa ngi dégg di ma loolu moo gën a ndaw ci li ma teyru saar defar ba pare yëg ma yëg gi ma rek moo ma gën a moo a rey même su ma joxul woon cent franc yëg gi ma di ma dund ma xam ni kii def ma bëgg te yàlla tax di ma dund rek maanaam teyru ma dama bokk ci famem yaa ngi dégg. may gërëm rek tam Seydou ak ñoom ñëpp. xam wax. Mm. vraiment taxaw na ma. Mm. may gërëm ñaari soxnaam yëpp. yaa ngi dégg yàlla na yàlla sama borom jàppale. Mm. sàmm ka sàmm njabootam. ndax man du ma fa xëjëf. damay gis ni billaahi wallaahi talaahi tey ma tolloon diggante am problème nii nga yëkkat sa cent franc jox ma cent franc boobu day mel ni milliard si man fu ma toll dama koy wax. ndax ndongoloo wax na ko. mu ne ku la defal lu baax. boo ko boo ko boo ko waxul. bu lim ay noonu la boole man du ma genre boobu man lu ma nit defal. dama koy wax. billaahi wallaahi taalaa boo ma joxoon cent franc dinaa toog di ko wax di ko gonfale ba nit ñi ne bàyyi ma yoon xanaa kii milliard la jox. dëgg la cent franc yooyu def ko milliard. Hmm. ndax dafa neex. Ah, ndax Baye ndax Baye tey Sarr yor xaalisam liggéey ka hmm. yaa ngi dëgg dañ ñax ka ba muy liggéey xaalisam bàyyi ma yoon fekkew ko bàyyi mu yoon na xale bu ndaw. Hmm. yàlla boole ko moom lu mu bëgg mu taxaw ko. imagine loolu yow ah xëyuma gontuma lamba ji moom mooy suma métier. xëyuma fenn gontuma fen mais namu ma dara ñëw ma suma benn moroom ndax tayru loolu loolu saa ku la defal loolu nga waxante dëgg ay gor lan il faut nga gërëm ko. kon Baye Mandione léegi fi mu toll nii ci combat yi nga jugee jàppale pire laa am jamono ji. soo jugee ci sa combat bi Souleymane Ndiaye xam nga Souleymane Ndiaye benn. Mm. SDD e ba pare ne sama ginnaaw ku baax moom tamit billaay di ma jàppale. yaa ngi dégg hmm. ak maire Thiaré Ndiaga Niang ñoom Abdoulaye Diop maire ginnaaw raay Abdou Naar Meng hmm. sama papa Babacar Diop ñoom Mamadou Diagne xam nga hmm. di naan ku lim da ngay juum Thiaré yëpp taxaw di ma jàppale instant moom dëgg yàlla moom am naa jàppale am naa ginnaaw am naa ñaan macha allah waaw waaye boobu entraînement bi pay nga an te waaye xama laa la ñaan ab saako bu taxaw de bu la ñaanal ñaanal jàppale la jàppale la boo entraînement moom moo solo yam entraînement mooy pay mooy instant bi dafa am ñoo xam dañ may gis sax gis ma ñëw entraînement xool ma rek commencé ndeysaan yeesal sama sama seen cofal ci man ne vraiment booy nag instant bii ku la xool xam ne yaa ngi liggéey ñun ñëpp nañ jàpp sa combat man damaa gis sax beneen mbooloo bés ma xam dama affaire damaa jaax man waa lu demee nii lan la ay yeneen nit ñu yàlla andiwaat ñu taxaw dinañ may jàppale hmm. mais imagine su ma nelaw bu ma gisee di xool ma am état dana waay ay teg da fële waay kii sa combat yaa sa combat yaa que séntu nañ ci dóor mbër léppaa ci am bu soobee yàlla. kon Baye bu la joo gis Baye Mandione mi nga xamante ni. sa contre ak Moussa Dioum xeex bu bëre bi. nu yàlla lafal cat mu sonn mbër mi jàkkaarloo man dama doom day mii. xam ngeen ni Baye Mandione ma ngeen doon gis ak bii toog bokkul. wala de instant bi di mu la ay supporters yu bees sax laa am mu leer yu bees sax. mais nag tooñ ñu sewee ca ca Baye Mandione ba woon ba léegi mu ngi yow. waaw waaw. <laughs> mbër du Gambien. non non man Gambien amul karate Gambien maa ko wax. loolu la nga jaaxal la ne waaw baabu yëpp jëlee loolu. <laughs> ba pare nga ñëw di ruube nga ne yaa ngi nuyu président kan. yaa jàmmee ah ma ko doon gàmmee ma fa. bàyyi ma jox ma ne maa ngi maa ngi gërëm yaa jàmmee di ko nuyu gars yi loolu loolu da waaw parce yooyu yooyu ay neexal la rek waaw yooyu ay neexal la quoi xam nga yaa jaamee nekkoon na fi fatagamier yaa bëgg rax mais parce que yow fi mu toll nii lépp loo ko <laughs> naa ne après dafa retard quoi ñoom ñu quoi dañu waay kii ab bàtt dara ñoom ñoom gars yi. waaw mais ku xam Baye Mandione xam ne yàgg na ci il faut xam nga donc nag yi signé contrat xam nga mais yenn saa yi. il faut nga cabaxal mooy yoo xamante ni gars yi dañuy. beesaat retaan quoi. waaw si yenn saa yi nga yëngal yëngal ni dëgg la ñëpp commencé nii waay mais lii tàng na de. Hmm. nga jékki-jékki rek dugal benn mot boo xamante ni gars yi dañuy beesaat. Hmm. maanaam fo bi day ñëwaat quoi. Hmm. yaa moo tax moo do démb ba affaire yëngu yëngu yëngu ba gars yi tiit. ma jékki-jékki ne yee maa ngi gërëm yaa rek gars yi retard foofu toj waaw xam nga loola mooy nuyu nag président bi euh, bu Gàmbi muy Adama Barrow waa yàlla yàlla euh, euh, oyofal yan bi si koom ndax bi mu mittee Sénégal ñu ñëw taxaw jàppale leen hmm. xam nga ñun ne si bokk ndey bokk bàyyi hmm. yàlla yàlla defal jàmm ñun ñëpp hmm. yàlla may ma dem sama komba bi ak combat yi si yëpp mbër yëpp yàlla defal leen jàmm defal leen salaam seen sud bi yàlla seen borom jàppale leen bu baax a baax a baax ba ngeen bokk ci sud gën a kawe. wasaare lamb non lamb yow émission bi moo moo moo moo moo moo moo waaw moo mooy bomb bi. waaw ba ma ko dugalee gars yi da leen si parce que man bi ba doon ma woo téléphone quoi billaahi wallaahi taala ne ma bu toogee seen i saa yenn saa yi rek dugg YouTube bi xool sama benn waxtaan quoi déglu ko. mais bu ñu ko déglu dama woo téléphone dañuy liggéey sama numéro oomo affaire yi quoi. booy vraiment kontaan naa nga parce que àdduna sa waay sa xol man de loolu ma yàlla bind yéen a ma fii kenn lu bon sama xol pour mu leer. lu waay am. ñaan naa la yàlla yàlla yàlla na yokk nga nga am nekk am minti milliardaire. ku ñàkk yalla na yàlla sama borom ubbil xéewal ni ngeen nekk minti milliardaire waaye boo nekkee milliardaire am xaalis ki am xaalis ah. waaye mais loolu loolu loolu day neex. yow doo dem bi laaj ñaan kenn soxla doo gis ku yelwaan ci mbedd doo gis kenn yàlla may ñëpp xaalis defoo ñëpp jàmm kenn du feebar mais loolu neex dafa neex. xam nga mais mais mais doomu aadama nekk loolu war a yéene moromam ah. te ñu gisee maa yow nga am problème tey ma yor xaalis dama war yëkkati xaalis bi jox la tey ma ma yor benn vingt mille nga am sa problème damay xaalis ci digg bi ne waay kat ah de vingt mille franc laa yor sama poche waaye jël dix boo ma ñaanalee ma ñaanal la bu ëllëgee yàlla dina la yokk yokk ma suñ dix mille yi mën a nekk ay millions bu ëllëgee hmm. loolu mooy àdduna yeneente jàmm ak salaam xam nga yeneen sud yëpp ngeen bokk ak ñoom day bokk ak ñoom bàyyi hmm. yeneen journaliste yëpp bokk ak ñoom day bokk ak ñoom bàyyi hmm. àdduna amul solo nga lii yëpp ay fola rek yaa ngi dégg àdduna day jeex dañuy génn àdduna ñu defal ñu sàng ñu sikaral ñu dugal ñu si bàmmeel ñuy yaakaar àjjana te yàlla na fi yàlla dugal ñu ñëpp. xam nga àdduna bi euh, maanaam amul solo chaque jour ma dama koy wax sama émission. bu ñu téye àdduna rek na du jeex àdduna day lay jeex. waaw ni ngay defaree nag yaa ngi dégg sa àdduna di préparer ay kër ak oto yu rafet ak lu la nga koy préparer loolu nga war a mën a préparer waajal sa bàmmeel. wallaahi ndax jëfe àdduna àdduna la yem de. waaye jëf jëf joo xamante ne kaa liggéey yàlla suñu borom mu nekk si yow bu la robee boo duggee ci bàmmeel rek jëf jooju mooy nekk ay leer benn malaaka du ñooju la laaj bu doom jëm àjjana malaaka du ko laaj bokk malaaka yi tiim du la laaj rek xamal yow ñu seen biir daa desee leer mais ku dem àjjana robee rek dem nga barko Rasulullah non du kenn non ah, dëgg la parce que non non mais xam nga ñun ay julli lan salaam alayhi salaatu wasalaam lan gëm yaa ngi dégg man ma gëm ko démb gëm ko tey yaa ngi dégg di saabu Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam. Hmm. kon tey bu dee benn béykat wala ñaar sama papa tagg Seydina Mohamed di waxtaan ci moom ba nu mu génnee àdduna. yaa ngi dégg man naa wax ne man ci tagg Seydina Mohamed la ñu mbëri naan. voilà ba su mbër lan ma ngénte xaalisu nangam. man ngéntee ñu ma ay xaalis si yooyu. Hmm. sama papa day waxtaan Seydina Mohamed di tagg Seydina Mohamed du ñu xamal kan mooy Seydina Mohamed man ki tagg Seydina Rasulullah lañ ma ngénte. may ñu ci benn ñu. waaw ki tagg Seydina Mohamed la ñu maanaam ci tëgg Seydina Mohamed laa wax sama papa ci la nekk ba ni mu génnee àdduna man ci la nu génnee am na benn combat nga am combat. Mm. Mm. micro topp la. ngay woy woy wu neex. non loolu si <laughs> waaye yow <laughs> waaye yow non baal baal ma combat bi ñoo <laughs> far gaynde bàyyi laa wul maas lépp na baax incha waa mm. bàyyi kon tey ba tey ñu ngi fii léegi maanaam boo jugee fii ci Gambie. jugee ci combat bi nga xamante ni fa nga jëm est-ce que Sénégal ñu ngi démarché sa combat yoo xamante ni. Hmm. yaa ngi ko war a bëri foofu. jabar sama yeewu suba de yàlla la wóor. sa yeewu suba yàlla la wóor ñun ñëpp suñu yeewu suba yàlla la wóor. Hmm. li ñu dëgmal muy sama kombaa ak roi des arènes bu Gambie bi. Hmm. ñun ñaan yàlla suñu borom ñu fekk ak tal. bu jàllee nag ñu doog a wax leneen. doog a wax ak keneen doog a def keneen. mais pour le moment ni ma waxee yow nii nii nii nii. man du ma genre mbër yooyu du ma téye combat ab jàmbur lekk avance ab jàmbur ba pare war a bëre mbër ak séegul may dem di négocier ak beneen promoteur suuf dama dama dama def loolu man du ma wor xaw ma yooyu du ko def ndax bëgguma boo léegee tey jii ndoyemaa yow muy sëgg loolu rek laa ragal sama àdduna bëgg naa saa mu ndoyee rek ñu ko laa bëgg a béggante xaalis jaralu ma yenn yi ma ne ci biir combat après di waxaale beneen combat su dama may fekkee tal defal bu wér defal ko sama njaboot defal ka wér moom xoyantaan defal ko njabootam ak yéen journaliste yi yëpp kenn bañ a wuute ñu fekkee lépp ba jour ba incha allah yàlla may ma dem si kawam bu yàlla may dem si kawam nag combat bi da ngay ñëw ñu àndaat ñibbi Sénégal foofu lu neexee nag ñu dugg ci beneen gam mm. mais pour le moment nii nii nii waa ji man moom a intéressé question bi mooy mujjee. waaw mooy est-ce que Baye Mandione mës naa jóge Sénégal bëri ji feneen fu biir Sénégal. non mës sa am nag de. man sama ko yëpp bu Sénégal la c'est la première fois ma jugee réew ak ñëw fii. Hmm. ndax est-ce kon da jëlee ay supporters Sénégal ñu ñëw fekk Sénégal. waaye waa ji man maa ko supporter fii yow dem yaa ngi ko contrat ba. man mën a tël damaa wàcc damaa tiise ma ne man ki man ñi ñi ma dadu dooy gën na ñoo xam xaw ma leen ñëw wóor ma bàyyi ma jox ñu ma luti rek man la ñu escorté ma ma ne waaw man lii waaw xaw ma ci kenn ma ko ma fale sax ma xool na waaw man waa ñi ñi ñan lan ñuy ci biir ni ñi su lekku di ñëw di ma wër accompagnement daag ma dugg si biir yaa ngi dégg dem bu ñu demee situation ñu dem taxaw ne toog mu sax dama taxaw ne li def mbooloo tiim may xool naa waa ñii fu ma xamee may may may lu xool di bëgg ku ma am pour am ku ma xàmmee ak ma gisuma ku ma xàmmee. Hmm. barke yàlla sama xel maanaam boobu man ñii ba du ay ginne yu ma topp affaire yooyu quoi loolu laa wax ma fi dara nga sama rakk laa àndal may ñëw billaahi wallaahi taalaa kenn laa àndal sama rakk baa ma ñëw junior kese laa a ñëw fii. équipe bu ànduma kenn ñëpp laa nan bàyyi sama rakk kese yaa ngi dégg foo dem yàlla moo fa ne tey su ma ragaloon su ma ñëw fi mbooloo laa fee ni naan dëkkab jàmbur laa jëm nangam mais man rek ñi mel na ma ànd ñëw gàmm yi bëre waa ngi delluwaat bi lu wér laa wax yàllaa fi ne. noo gisee ki nga xamante ne xale la. ñu ñu ngeen mag ko ci at. muy tëgg làmb ba doxal làmb ji nga xamante ne mooy Baye Mandione. xoyantaan muy jamaïcain noo mel ak moom. non wàññeeku ne si benn lay commencé jamaïcain moom xaw ma ko woon xamaaloo ma ko woon ginnaaw yàlla su ma ko xamee. moo la gën sama téléphone. woo ma tëggal ma ko ba ñu xamante looloo tax ma xamanteek moom. Mm-hmm. ba nii may wax ak yow billaahi wallaahi taalaa xaw ma fu buntu kër jamee kii féete. Mm-hmm. lii ba lii mooy tax ma gisee ak moom signature contrat. Mm-hmm. wala mu tëgg sama combat signature contrat ñu gisee mais xaw ma fu buntu mu féete. yaa ngi dégg. ndax moom supporter u Modou Lo la. yaa ngi dégg ci camp Modou Lo la bokk. donc promoteur la. xam nga la wax mais man sama jëmmi bopp. am na foo xamante ni man du ma fa dugg mooy lan. Jamaïcain ko xam-xam ni supporter Modou Lo la. moom mooy seen président fan si club moo yor lépp. donc promoteur la nag. moo ko nekkoon. waaw moo ko nekkoon. mais bi même bi muy tëgg sama lamb sax nee na ma bër maanaam man fan si Modou Lo la lépp Modou mais saa bi promoteur laa. yéen ñëpp laa yamal nangam ak nangam. man nekk sa waay man dundu ba yi ngay wax ni ay yemale ay nangam ak nangam man amul problème lamb leen si xamaa yow nga tëgg sama combat. yaa ngi dégg dama lay ñaanal nga dem ba nekk ci promoteur yu mag yi di tëgg combat yu mag yi laa lay ñaanal mais man xooloo ma bëtam yow Modou Lo ngay àndal ak Balla ngay àndal Samba ma ne ko xooloo ma bët bu doomu aadama laa lay xoole nit ak nit mm-hmm. comme ñu bokk ndey ak baay laa lay xoole mais bil jël loolu andi ko bil bil na man si Modou Lo nekk rek ko du may tëgg combat ko yeneen mbëri dañ dañuy am ci man xel ñaar wala ñu may ragal ak yooyu mm-hmm. ma ne la fi ragal kër mbër moo bëgg a dem tëgg demal demal demal si kër mbër mu waxtaan ak moom tëgg combat am mm-hmm. ma ne ko li ngay def da nga koy ragal pété day xañe wërsëg yow Modou Lo nga pétel ba Sénégal xam ni moom nga pétel mais teewul nag promoteur gi à part la mbër moo bëgg a dem këram ma nekk demul këram boo bëgg a tëgal combat tëgal combat am mais Modou Lo daful fam toog lay toog mais day comprendre xam ne ne kii sama fans la mais teewul day ut xaalis pour yóbbu si njabootam promoteur la da kay nangul na ko loolu yaa ngi mais muy waaju baax wax dëgg yàlla xam nga man miy waxee ak yow nii man mi maanaam lamba ji moo tax ma xam ko comme ni mu koo baax mais si diggante bi rek minante na ci minante goo xamante ne maa ngi moom damay dama koy fekk mu taxaw ma koy solal yëkkati ko ba ci kaw di ko solal di xam ba di ko fam moom di ko sonal yaa ngi dégg ndax non xam nga non du du lim tuuti de <laughs> maanaam dama koy def pour mu pour mu ñime ma waaw xam ne man du ma genre bëri yoo xamante ni man dama lay xool bëtë bi yow diwee ànd ak hmm. kii diw àndal man li gëntiw ma yooyu àndal ak ku la neex yaa moom sa bopp bu yeboo muy finaan bi dara dal ak Modou Lo wala muy bokk ak Modou benn lal di finaan xam nga loolu ñoom ñaar la concerné mais promoteur gi mu doon di tëgg combat yaa ngi dégg fas yéene teral ay waajuram ak njabootam yàlla na ko yàlla soo borom jàppale. jàmbaar la. na mbër dawal coopération ñu xam ni kii xale bu ndaw la. yaa ngi dégg ñu jàppale ko xam ni làmb na demee woon demeetu ko. xaalis bu bëri bi ci amoon. ni nii nii des na ndax sponsor bi genn wàll gëpp a daw xam nga ñu ñaan yàlla sponsor bi ñëwaat bu jamee kee mën a fay ay milliards mbëri mbëri bëri loolu la. noo gisee perte-per-vue ci làmb. per lan. perte perfervi waaw mooy maanaam li nga xamante ne Luc Nicolaï innovation boo xam ne moom moo ko fi njëkk def ci làmb nga jënd code di seetaan làmb ji ci internet. Ah, jàmbaar ki bëgg a dee wex ay béykat dafa fayul mbër de <laughs> loolu doo gisee loolu. <laughs> yëfi tubaab la nag ma la bëgg a wax ki bëgg naan ku nekk yaa xam na ngay raggee sa sa xaram. <laughs> ah soo ay tëgg ko maam mag def ci ay xaalis bu jeex. Hmm. def ko dara te gisoo benn sponsor. war a pare boo boo ñëwee sa yow ah yaa ngi fay mbir ay cent quelques millions. te boo paree doo jaay sa trente millions ci billet. waaw léegi kuy fay la kuy fay mbir yi. ah nag ñu per per vie ndax père mooy papa. waaw na ni père da doon papa jàppale laa ma jël. per vie mooy papa ñu ñëw pour jàppale la ma jël moom mooy père per vie xaw ah. à part lan mooy sa sport boo xamante waaw man nag damay wax dëgg yàlla à part làmb nii nii man naa dajale sama gars yi rek xam nga ñuy kaf di ree mbala ngante bi fii bëri. à part làmb ban sport. ah, ah sport am lan comme. football làmb bëre basket handball rugby. yow ban nga ci gën a euh, bëgg daal wala nga xam ni. non même même bi gars yi def bombardier bi mu la jiwoon fee tubaab yow. waaw ak Rocky bër booy def tubaab maa ngi koy nuyoo parce que Rocky borom baax nit ku baax daf may conseil ziar waaw yi waaye su waaye loolu moo dàq bëri sa loolu amul gàllaaj amul dara sa flasaa ngay ñëw sa flasaa ngay sol ak sa ñaari gaa jeex na moom ngay nuwaale doo fay benn sëriñ di sonatul doo fay kenn doo dem ci mara doo dem fenn da ngay jógee xool naan la wal rek njaay dégg sol sa flataa tekk sa ñaari gaa dugg ci ñu dund ay ayoo métti loolu dafa neex yëfi góor la dem waaye de loolu moo dàq dafa neex. yow pare nga pour dem. amal naa la ñaar de bu ci am tuus am amoon. am tuus am ci. Hmm. gars yi duñ jóg. Hmm. yaa ngi dégg supporter yi yëngu comme nii. ay nasaraan lañ soo laay dafa neex. nasaraan xamul nju. waaw ñu daan jóg farfoos ñu Sénégalais fu mu dem andi euh, andi fa fa lu bees. Eh. man de su ma fa amee combat ba dem fa naa fexe tubaab bi baax comme ñëpp billaay duñ jóg. Eh, waaw yow a rek ci njuk bu sax. dëgg ma maa xool démb daanaka <laughs> maa ngi nuyu sama bukki séeréer démb bi ab séeréer laa woon. Ah. démb njuure laa doon def kat di. waaw ah, waaw daa ñëw di fecc lu mu doon. ay taxaw di kër man nu ma. seen la loolu mooy mooy seen fecc bi nga xam ne ñoom waa Gambie moom la ñuy baax. mooy seen fecc cosaan. waaw mais mais moom moom soo ay. caf caf bi des na ay taxaw bi nag laa naan man man kuy vivre kuy vivre wala fecc la. ay Baye Mandione est-ce que mës ngaa bëre ci làmb ñu jàpp la ci gàllaaj ba nga xam ne tey jii sentiruma sama bopp. mbër ma wax la benn secret. boo xam ma ngi koy may sama bopp di ko may mbëri Sénégal xam ngeen mbër boobu. <laughs> ku koy songoo kenn mënu laa jàpp ci sëriñ. mbër boobu. <laughs> waaw <laughs> ah. laa jàpp ci sëriñ. ak foo toll ngay ànd ak njàpp loolu man maa ko may. kon Baye Mandione mosuñu koo jàpp ci la. xalaatuma ko te kenn du ma jàpp jàppi lan eh, amul jàppi loxo yoo xamante ni di doonoo jàppi loxo am te loolu dóor nga fay fan la am. ma tey bu ñuy boo jàppee samay loxo kay ku ma dóor mooy hmm. eh, boo xam boobu mooy dóor may fayu. Hmm. ñeneen ma jàpp samay loxo. Hmm. ay dama jàpp diw nangam ñu fay la fay ma. yooyu xoolal même bu amee man sentiruma loolu. yaa ngi dégg na mbëri sangoo mbër boof fu ñu toll ñu ànd ak njàpp bu jeex tag bu fekk yaa ngi jàpp kenn mënu laa liggéey booy tëdd ngay tëddaalee jàpp tamit kenn mënu laa liggéey loolu kese la. jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ni yéen ñuy seetaan wasaare lamb gis ngeen li nga xamante ni mooy Baye Mandione Baye Mandione ci waxtaan gi nga xamante ni waxtaan nañ ko ndeysaan moom boo toogee di waxtaan moom doo doyal ngir xol bu rafet bi ngir yéene nit ñi ku mu toog di waxtaan moom day mel ni dalay jàppee comme boppam Mandione ñu ngi doog toog tey waaye sëñ Basiru gis nga ci moom li nga xamante ne mooy mbaax yaatu yamale ñëpp ñu doon benn mooy li ñuy li ñu yàgg gis ci moom rek parce que depuis ñu xam Baye Mandione ba léegi mën naa ne changement amul ci moom parce que jikko ji mu amee woon daaw moom la amee ba léegi fu mu toog kenn du ñëpp te loolu borom xol bu rafet moom mooy mooy mel noonu donc dañu koy ñaanal rek yoon wi nga xam ne nii jël na ko yal na ci am lu kawe njortam mais aussi gis nga euh, làmb gi nii tey wax nañu li nekk ci yoonam wax nañu fi mu jógee ak fi mu jëm mais aussi wax nañu benn étape boo xam ne nii xaw na xaw na yéeme xaw na jafe dund il faut nga nekk góor dëgg pour mën koo dund te kenn kenn du ko yëg wax na ko ci biir waxam donc euh, loolu la loolu mooy làmb tey nag ñu ngi woon ci Gambie euh, Jamaïcain comme ni nga ko waxee dama naan ko sax le promoteur de la nouvelle génération. bokk nañu tuddee ko le fils de promoteur. <laughs> doomu promoteur yi <laughs> mu ngi allah li mu bëgg ci combat bi diggante Baye Mandione ak Xoyantaan moo ko xam yal na ko suñu borom def ñu dellu waat fii assister combat boo xam ne nii combat bu neex a neex lay doon xamuñu nag naka lay mujjee ndax day des Gambie wala day dem Sénégal. day dem Sénégal yow laa koy may sax roi bi. <laughs> ah na man la koy may. bu la <laughs> ko mayee may na ko waa Wasaare Lamb kon waa Wasaare Lamb kar leen li ngeen xamante ni mooy dam kon Pathé war nga cee jàpp nag. yaag xol yaag yaag baabu war ngeen a jàpp ci li nga xamante ni moom la Baye Mandione di xel ndax léeg-léeg bu ko gañee trophée bi waa Wassare Lamb la koy may jërëjëf Baye Mandione waaye ñoo far kontaan naa trop quoi na jàmm yàgg rek yàlla may ñu xaalis xaalis baax na nag yàlla may xaalis pose fees del banque jóge fii waaw célibataire yi am ñu jabar ñu am mbër baax na waaye balaa fee oo jàmm. amagul jabar kala. te suñu paate bii dafa bëgg a takk ñaareel. paate takkal paate. dëgg la ma la wax billaahi ma ngaa takk jabar yàlla ubbi la xéewal yëpp. ñaareel kay la. doomu aadama kenn mënu kaa yor yàlla rek moo mën a yor nit ñi. ñaar lan. ñaareel Fada ñaareel la waaye xamal laa la ñaareel. billahi yenn saa nga day benn boo xamante ni day mel ni ñeenti jabar nga yor. <laughs> jërëjëf jërëjëf mbokk yi gis ngeen kon kooku nga xamante ni mooy Baye Mandione ñu leen di tàggu xanaa dañuy dugg ci biir hôtel bi xool ñeneen ñi nga xamante ni ñu ngi fi ku ci mel ni euh, Wulli mu ngi fi Liiru Jaan mu ngi fi ak promoteur bi nga xamante ni moo tëgg làmb kon léegi ñu dem ci biir xool gaa yi dem te ñëw.